ci bésum talaata ji ñoom dawalkatu moto yi ñu ngi mer ba futt bu ñu xëyee mboto yi bougé ñu centimètre depuis ba depuis ba démb ba léegi moto yi ngi fi demuñu fenn te waxuñu dara lu leer la ko waral mooy niki démb ba tey dañ leen teree daw ci tali bi tere leen ñu xëy waa ji itam bokk ci ñi ñu jàpp seen mbëto di ñaawlu lu ni mel. ñun fi lañ fanaan depuis démb ba tey dañoo sonn ñibbi ñu suñu kër yi parce que amuñu benn amuñu dara ci lu leer tey jii nii suñu mbëto yi fan la mën a dem te mbëto yi tamit mooy suñuy mooy suñu business quoi fii ñu fi ëpp boo xoolee ay livreur lañ te ci la ñuy job te tey jii nii ñun waruñu ñu mën a teg fii nii depuis démb ba tey amuñu benn information bu leer ku ñëw ay calmant la ñuy jox après dem yoonam. ba tey ci kàddoom di ñu xamle ni rek mbëta yooyee ñu jàpp daf leen teree ndax ñu bëri ci ñoom ay cag-cag lañu. parce que tey boo xoolee fii ku fi nekk si ñun ñu fi nekk ñëpp fii ay kii ñoo fi nekk ay responsable tey boo xoolee kenn liggéeyu ci ñun ñëpp tey dañoo xëy toog fii jàpp suñu ñàmbur te loolu c'est pas normal pour lan pour ay moto yu ñu téye xamuñu ban commissariat lañu koy yóbbu. sonn ak tiis Lamine moom di ñu xamal ni rek yëgul woon benn yoon bi la arrêté. non yëguñ ko woon parce que mooy li ma la wax rek livraison lañ jógee di ñibbisi xam nga li ma la wax ñu ñu jàpp ñu fii jàpp yoo xamante ne dalay bett sax quoi ñu ñëw nañu mooy loolu décret moo génn dañ ne mu day daw sonn nañ quoi depuis démb ba léegi 18 ba tey. ministère de l'intérieur tabb ndikki démb ab bataaxal ngir tere bépp moto daw ci tali bi ngir mën a aar kaaraange réew mi ginnaaw noonu ñu nemmeeku yenu xët-xët ci borom bato yi nag di ñaaw lu lu ni mel ndaxte dañu leen tere rek ñu doori waar ci seen kàddu ñoom di xamle ni rek bile arrêté teguwul ci benn yoon.